salaatu lu néew ci ay fan des ci bis bi Seexul Xaddim waxoon ni nan ko ci santle boromam 18 safar lu Tuuba fépp fu murit nekk ci biir àddina bi wàcc dox jëm ca Argentine di réew mu ñu ràññi ay murit yu am Pastef nekk fii itam di taxawal bisu seexul xadim gi ci ati 2022 gii ñu daal di ci ma amal bés bu am solo bu ràññiku itam tax jëwrin yi ànd ak jàngkatu xaside yi daal di defar ay affiches jagleel ko mbokk nasaraan yi nga xam ni dañu nekk ci réew mi ngir yégal leen na leen daañu amal bésu màggalu tuuba fii ci biir Argentine màggal gu mucc ayib ngir woo ci ñu teewe lu ni mel ginnaaw gi itam jëwriñ yi daal dina ñu yëkkati ay kàddu daal di fàttali ki nga xam ni moo di seexal xadim di jaar sëñ Gunda Fall mi nga xamante ni moom lañ àndal ak euh, sunu jëwriñ Cheikh Ahmad Bamba ak mbokku taalibe yi nga xamante ni ñoom lañ àndal lépp bu ngeen gisee jotaay bi nag ngeen xam ni am na lu ko waral muy li nga xamante ni moom la ñuy waajal muy màggalu Serigne Touba gi nga xamante ni ñun ñi nga xamante ni ñun murit moom rek lan am mu woote woon ni képp koo xamante ni sama mbégte sa mbégte la ñëwal santale ma sunu borom ci li nga xamante ni moom la ma defal. xam naa ne dañuy jox sunu jëwriñ Cheikh Ahmadou Bamba Niang bu ko defee mu am kàddu yoo xamante ni dana ko yëkkati ngir mbokk taalibe yi mën koo bàyyi xel bu baax a baax waa bisimilah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah borom Touba. ndax suñu yaakaar tey ëllëg moo ñu wax ne eh, képp koo xam ne sama mbégte sa mbégte la na ngeen ma santee la yàlla ci bis bii nga xam ni ëpp na mu bañoon a am ndax sañ borom defal na ko ca loo xam ni bu amul woon rek mu doy waar. ak bis bi maanaam ñun waruñoo def lu dul rek mirage sañu bopp wallaay la kon nag nañ leen ci def lu ñu mën at lu ñu mënul. sëñ bi moo ne ñëw leen santale ma yàlla ci bis bi nga xam ne aw ma lu dul moom kon nag ñu góorgóorlu si ñëpp.